waaw.
mu ne faslun alsalaatu almafrudatu xamsatun mu ne julli yi nga xamante ne moom la yàlla farataal ci jaamam bi mu ne xamsatun juróom lañu julli yi nga xamante ne moom la yàlla jox yonent bi ba mu rañaanee ci rajab mu ne julli yooyu juróom lañu ñoo ko yeneen ngeen mu ne ab zuhru mooy tisbaar wala asru ak takkusaan wala magribu ak timis wala ishaawu ak géewu suuf ak suba wali kulli waaxidatin ñel na bépp benn ak ci juróom julli yi min haa ci moom waxtaani ñaari waxtu ndax yàlla moo ne inna salaata kaanat alal muminina kitaban mawquutan julli yàlla daf ko utal waxtu nekkul waxtu bu la neex nga julli waaw julli bu nekk yàlla daf ko utal waxtu boo xamante ne ci nga ko war a joxe moo tax mu ne wali kulli waxtin min haa wax bu bu bu mu ci julli yi am na waxtaani ñaari waxtu ixtiyaar yi ko ji ixtiyaar wa daruri ak ko ju daruri ixtiyaar mooy waxtu bi nga xamante ne moom lañ tànn te soo amul benn gànt sa dara gàllankooru la si nga war a julli si lañ tànn nga julli si daruri nag mooy waxtu daruri mooy waxtu bi nga xamante ne fekkee daa amoon lu la gàllankoor am ngànt go- lu la lii woon baare woon ba joxe woon waxtu si mu waxtu si ixtiyaar bi nga joxe waxtu bi si waxtu si daruri bi
ba julli la ci muxtaar bi dana am bàkkaar waaw bu fekkee nag julli woo si muxtaar bi ba waxtu yi paase te amoon benn ngànt nee na asima am nga bàkkaar man taaxara salat ila waxtu daruri min gayri uzrin asima mu ne fal ixtiyaar yi koju ixtiyaar wala fal ixtiyaar waxtu gin tànn li duhri yi ñeeg tisbaar min zawali shams mi ngi dalee si jëngal ñu ko jant bi bu jant bi jàngal ñu ko mooy bu jant bi nekkee ci digg asamaan ay boori une heure une heure demi foo la waxtu tisbaar commencé li aaxir xaama ba si mujjantalu xaama gi mujjantalu taxawaay gi mooy soo demee ba sa takk ndeer tolloog si jëmm mooy aaxiru xaama soo demee ba sa takk ndeer tolloog si jëmm waxtu ci muxtaar tisbaar foofu la yem woowu moom soo xamul aaxiru xaama awwal waxtu la asri mooy njaal benn waxtu takusaan bu takusaan dugg si rek muxtaar tisbaar jeex mu ne wa axiruhu mujjantalu waxtu gun tànn ci tàkkusaan ilaa istilaadi shams jëm na ba gellu jant bi su ne ba jant bi gell ba commencé jaune mu ne foofu la muxtaaru tàkkusaan yem walil maghribi ñeen la timis nag ñeen la muxtaaru timis bi xurubi xuusi shamsi si soowu xonq xonq jant bi moom muxtaara mi ngi dalee bu xonq-xonq jant bi demee ba sox rek muxtaar bi dugg si na huwa moom mu dayiqun lu ñu xatal la waxtoom muxtaaram moo gën a gàtt si muxtaar bi xëy mum tëdd nekkul lu ñu tàllal nekkul lu yaatu lool mën yu xat daw def na nattale muxtaar ga bi fiiliyaa ci jëfam baada taxsiili shurutiyaa ginnaaw matu charte ya soo jàppee soo jàppee ñëw liqam ñëw nodd liqam kàbbaar soo sëlmalee muxtaar bi jeex waaw soo defee charte yi rek waxtaan gi foo leen ko nattal wala isha ñen la gee ñen la muxtaar gee min gaybi bu bati shafaq yi bàyyi ko si faddu xonq xonq yi faddu shafaq al ahmar bay aju xonq waaw parce que bu jant bi sowee di am ay xonq xonq yi nekk si asamaan si yooyu nag su demee ba faddu rek takkusaan ci gee dugg si na ilaa sulusi layl awal jëm si ñetteelu xaaj guddi al awal bay aju lëkk guddi gi suñu ko xaajee ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi su jeexee foofu la muxtaar ga yem mu ne wali subaxi ñenn suba min tuluuil fajiri si fenkuk jant bi si fenkuk fajar asadiq bi aju dëggu suba moom muxtaara mi ngi tàmbalee bu fajar xaree waaw lil isra jëmb si set ga al aala bi aju kawe su demee nag ba koo gis xàmmee ko mu dem ba set ba leer ba koo gis xàmmee ko ku ku la dànd ku la dànd ay mètre mètre soo ko xoolee xam ne kii diw la boobaa muxtaaram foofu la yem wa daruri daruri yi nag mu waaw wa daruri yi waxtu daruri yi li subax ñel suba ñel isfiraay mi ngi bàyyi ko si set gi al aala bi aji kawe ila tuluu shams jëm ba fenku jant bi waaw ba fenku jant bi foofu la daru tam yem jant bi fenkee dawri suba foofu la yem wali zuhri ñeena tisbaar min awali waqti la asi ci njaal bennu waxtu tàkkusaan al muxtaar ba di buñ tànn waaw waxtu mu- muxtaaru tàkkusaan fi mu tàmbalee ah moom foofu la dawiram commencé moom tisbaar ilaa gurubi quusi shams jëm ba soow xonq jant bi waaw jëm ba jant bi sox foofu la dawiram yem moom tàkkusaan ak tis- ak ak ah, waaw walil asri ñen la tàkkusaan mel israel bàyyi ko ci gelgelu jant bi ila waqtil gurubi jëm ba waxtu sow jant bi moom ak tàkkusaan tàkkusaan ak tisbaar ñoo bokk seen daw yi ñoo bokk ci ñam walil maghrib mel na timis timis mel faraaqi ci noppi min haa ci moom ginnaaw ba nga noppee ci julli gi foofu la muxtaar dayuram commencé ila tuluuil fajri jëm ba xaru fajar moom moo gën a gudd ah, daruri yi ci julli yi moom dayuram ah, bu boo sëlmalee timis ndax muxtaar bi foofu la yem fa gàtt soo sëlmalee timis foofu la commencé ba xaru fajar wala isha ñen la gee min axiri sulusi leyli tukkee si mujjantalu ñetteelu xaajal guddi gi al awal bi aji njëkk ila tulu il faji jëm ba fekk fajar fi muxtaaram jam foofu la foofu la dawiram commencé jëm ba xaru fajar tam bi li ak yeete la mu ne man axara ku yéexee na afsalaati julli ila waxtu dawri jëm ba waxtu dawri ga jullee julliwoo nekk di taxaw wala ngay seetaan télé wala ngay ngay def lu moo doon ah, te du farata ah, ndax ndax lépp looy def ah, ba julli ba julli jot war nga bàyyi loolu dem joxe dem joxe yàlla lim moom ndax kullu xaqin saaxifatun wa in azumat la jaa xaqullahi xaq lu mu rëy rëy ah, bu taxawee bu ak yàlla taxawee ah, ak boobu rod na konteetul waaw kon lépp looy def ba julli jot bàyyi ko fa nga dem julli jot waaw xanaa na ngay def loo xamante ne mënoo ko dagg kon waa may na la nga nga continuer ci liggéey googu ba muxtaar bi des loo xamante ne da nga ci mun julli ñeenti rakka su desee loolu nag amatoo droit continuer li ngay def loolu bàyyi dem jot waxtu bi kon ku yéex a julli ba ci waxtu daruri bi te am nga benn ngànt nee na asima am nga bàkkaar mu ne mu lay wax nag ngànt yi nga xamante ne moom la l'islam reconnaître nga xamante ne su la ah, su su la jotee da nga xam ne lii ngànt la waaw lu dul yii nag lislaam ja- eh, lislaam compté wu ko muy ngànt moo tax mu ne wala uddur ngànt yi alxaydu mooy mbërëk jigéen bu gis mbërëk ci ngànt la nekk julli waral ko wan ni faas ak jigéen bu eh, bu gis wasin direct wasin moom tamit eh, julli waru ko wal kufur ak yéeféer soo si nekkee julli waru la wa siba ak ndaw ba ko ngay muka ba ko ngay man mukallaf julli waru la wa junun ak dof ba ko ngay wér sa xel di dellusiwaat julli waru la ci ngànt nga nekk wala irma ak xam soo xamee ba ko ngay ximmi ah, diggante boobu julli waru la wan noo sooy nelaw diggante bi ngay nelaw ba ko ngay yeewu waxtu bu la si faat li sam topp la ko ndax ngànt la wan nisaan ak fàtte loo fàtte tamit nekkul loo fàtte fàtte woo ko waaye da nga kaa fàtte ba waxtu yi passé yëgoo ko nga koy doog a fàtte li ko kon baal lislaam baal na loolu ndax ngànt la léegi bu fekkee bu boo defee benn instant après bu bu ñëwaat comme nga def seize jours boobu nga nga dog sa xel dem seize jours léegi boo ñëwaatee julli yooyu noonu da nga koy fay nga koy fay da nga koy fay waaw mu nga koy mel fay ni- mu mel ni boo nelawee tamit kon soo nelawee tamit danga koy fay Mhm.
kii rek nga dul fay ci Mhm.
mbërëg Mhm.
moom ak ci nifaas ñoom dul fay Mhm.
waaw ñu des ñëpp ak yéeféer su tuubee du fay Ñu koy waaw.
ñu des ñëpp dañuy fay dégg Mhm.
xanaa irma waaw dañu ko waaw mën a fasun yajib dina war alal mukallaf si mukallaf Mhm.
qadaa ma fay lépp loo xamante ne faatahu fànn na ko min asalawaati mafruda si ay julli yu ñu farataal Mhm.
julli yi nga xamante ne dañ ko farataal ci yow te mooy julli juróom Mhm.
lépp loo si faat ah, da nga kaa war a fay forcément Mhm.
murattabatan muy lu ñu toftale fii ay waxtin kaani si waxtu wu mën a doon Mhm.
soo koy fay nag waxtu yi da nga naafilaak yi da nga naafilaak yëpp mën nga si fay Mhm.
te soo amee boru julli sax araam na si yow Waaw.
ngay naafila naafi yenn naafila yi Mhm.
loolu yenn yi nga xamante ne génne nañ ko si Mhm.
comme julli it ak shahadata alal loolu mu ne fii ay waxtin kaane ci waxtu bu mu mën a doon mën ko ci fay moo xam waxtu bu dagan naafila la ak waxtu bu dagan naafila dégg nga mu ne way jub dina war tartibul xaadiratayn toftale ñaari julli yu teew al musharikatayn ñaari julli yu bokk fil waxtu si benn waxtu ñaari julli yoo xamante ne ñaari julli yu teew lañu te bokk benn waxtu ah soo leen fay war na nga toftale leen comme ci daal takkusaan timis ak gee nga xam ñoo bokk waxtu soo leen fay tamit da nga leen toftale mu ne fa in xaalafa nem wuute na wa nem jàlla jàlla ne nem wuute na waaw aada na ba am asaaniya bu ñaar bi awalan ba faw fekkee nag da ngaa wuute njëkk a julli takkusaan doo ko julli ta tisbaar loolu baa da ngay ja da ngay baam waa takkusaan bi way yu dina wan nag taxdimul fawaid yi jiital julli yi fàtt alal xaadiri ci julli yi teew wa in xaraja doonte gën na waxtul xaadirati waxtu julli gi teew waaw donte waxtu julli gi teew génn na da amee julli yoo xam da nga koy fay te mu mat te te paasewul juróom julli kon boobaa da nga julli julli faa ba pare doo ko julli julli gi teew donte waxtu bi day génn fekkee nag ëpp na juróom julli nag mbaa da nga julli julli gi teew te moo tax mu ne maanaam te li fekk ëppul alaa xam salawaat yi si juróom julli su ko ëppee nag da nga julli julli gi teew pare doo ko julli julli faat mu ne fa in zaalat nem dolliku na nag alayha ci moom ala ahadil qawlayni ci benn ci ñaari waxi almashhurin yedi ni siwe aw ala al arba'i wala benn ci ñeenti waxi ala almashhuri sin siwe al axar mu ne xuddimat kon na jiital alxaajat julli gi teew ida daqa nem xam na waxtu ha waxtu ba waaw ngir Malik am na ñeent ci borom xam-xam yi ñoo xamante ne nee nañ fekkee ne julli faat yi dañoo ëpp juróom julli kon baa da nga julli julli gi teew a pare doo ko julli julli gi julli gi faat i daaw daaq waxtu waa même waxtu nag dafa xam fekkee waxtu bi xatul nag da nga xam ne mën nga si julli julli gi faat a pare comme nga nga faat juróom benn julli wala juróom ñaar julli waxtu bi yaatu nga mën si julli julli faat a pare doo ko julli julli gi teew waxtu bi génn kon baa mën nga def noonu mu ne man zakara ko fàttaliku na faaytatan julli faat fii waqtiyatin si waxtu goo xamante ni yajib dina war tartibaha toftale maaha ànd ak moom kon fay ni kaay nem nekk na fasdan di ku fasdan di kuy julli moom dong xataa na dog julli ga maa lam ya yaqidi li fekk fasul rakaatan rakaa bi wadu yaday ci teg ñaari loxoom ala rukbati ci kaw ñaari bëti woowam dégg nga da nga doon julli julli gi teew te dalaa waxoon fekkee da ngaa bàyyi ay julli faat te ëppul juróom julli da nga leen julli pare doo ko julli julli gi teew nga julli julli gi teew ba saak fàttali ko ne julli woon tisbaar nga julli takkusaan ba saak fàttali ko julli woon julli woon takkusaan ak timis ak ak suba kon boobaa fekkee fasagoo rakkaab fasagul da ngay dagg julli gi dem julli julli faat ba pare doo ko julli julli gi teew moo tax mu ne maalam ñaqid rak maalam yaa li fekk fasu rakaataan rakaa bi wajoo yéday si teg ñaari loxoom ala rukbati si kaw bët ñaari bët woom fee naa xadaxaa nem fas na nem nem rakaay fas na la nag fekkee nag teg na sa ñaari bët sa loxo ñaari bët woom ba sigi si ruko rakaay fasu na comme dam mën a tàppe ilayha si moom uxran beneen rakaa def ko naafila wa xaraja mu génn an shafiin si tollantal bi moo ma def ko ñaari rakaa def ko naafila supay mu njub julli julli fàtte après boobu di julli teew wen kaa ne nekk nag imaam andi imaam xataa day dog julli ga wala saxli pour wuutal ndax li njota julli baaxul day dog julli gi kenn ñëw jiite mbooloo mi waaye si dina roy nag yàqu googu dina roy zalika loolu dog googu waaye si dina roy zalika dog googu dogu julli gi dina roy li salaatil ma'muumin ne ñël julli ñu topp si ginnaawam waaw ñu jël ñu nekk si ginnaaw tamit dañuy dog pour julli gi suñu julli yàqu ñu jël keneen en ka nen nekk nen nekk na nag maamum man di maamum fekkee maamum la nag la dal dama daa ne wéy maa imaam yi ànd ak imaam bu mu dog julli ji ida faraga nem imaam bi sëlmal la sallaa na julli maa li sell mu fàtte woon su ma yoxi su ma yoxi topp mu baamu maa li nga xamante ne sallaa julli woon na ko maa imaam ànd ak imaam ndax ànd ak imaam bi saag dog julli gi du rek du du teggin moo tax ñu bëgg nga ànd ak moom ba julli gi pare soppee nag julli li nga fàtte woon waroon ko julli nga fay ko pare soppare li nga ànd ak imaam nga julliwaat fil waxtu si waxtu bi fen kaaneem nekk na nag jumaatan di juma kon ba salaaha def ci julli zuhran mu tisbaar fekkee si julli ñu wàll la fekk soo ànd ak imaam ba pare ba mu sëlmal da nga julli da nga jukk fay li la rawe ah tuute bi soo paree nga julli ko zuhran mu tisbaar wallaaha ne ko julli zuhran muy tisbaar ndax jumaa bi fegrooyu si imaam rek ah tisbaar nga julli moo ko jumaa thème bii lii ak yeesa la sayati dikk na ni sayati dikk na ni anna aqda rakaati naka fasuk raka inde ibnul qasim fas ibnul qasim taalib imam malik la woon imam malik moo ko jàngal ba mu ba mu raw ñëpp nee na bi raxili si aji nekk la si yëkkati yëkkati ko bopp na ruko yi bàyyi ko si ruko ibnul qasim nee na façon raka yi façon soo yëkkatee sa bopp soo soo soo jógee ci rukoor waaw soo ko jëlee sa bopp dina rukoor bàyyi ko ci rukoor mooy si gis rukoor rek soo sigee si rukoor rek ah raakaay ko suñu illaa fi masaay nag ay masala mazkurat la ñuy tudd ci mutawalaat ci mutawalaat waaw ci ci mutawalaat yu ñu guddali mu tax ay téye la mu ne am na masala yu ñu tudd naan ma jëmmi lunku gi rek raakaay façon la jëmmi lunku gi sansi gi soo lunku soo soo lu ko ay nii rek ba def sa ñaar loxo si bëtu woom rek am na ñu ne raakaay façon la Ibnu Xaasim nag li mu wax moom nee na li fekk sigoo sur ko raakaay façon mu ne fasul yaxrum dina araam alay si mukallaf salaatu nafli julli naafila inda tuluu inda tuluu shams si fas xaru fenku jant bi waaw maa ngi wulubi ak jamono sow jant bi jamono jant bi jamono bi muy fenk ak jamono bi muy sow ñaar waxtu yooyu dafa araam ñu naafila ci jamono bi muy fenk ak jamono bi muy sow dafa araam ñu naafila ci ndax ñi nga xamante ne dañuy faral di jaamu jant bi ak weer ak yooyu loolu boobu lañ koy jaamu waaw mun a wax inda xutbatil jumaati ak jamonoy xutba juma jamono ji imaam bi xutba dama araam na nga naafila wa inda diqil waxtu ak jamonoy xatu waxtu bi fekkee waxtu waxtaan bi dafa xat nga ñëw au lieu nga julli safarata dana fanaan nga naafila naafila boobu dafa araam soo ñëw waxtu bi xat da ngaa war a julli farata bi ndax mooy mooy mooy priorité moom moom moo priorité foofu waaw aw baada xurujihi wala ginnaaw génn waxtu bi li man ñeel ki nga xamante ne alayhi war na ko fadul julli farata wala ginnaaw ba waxtu passé nga war a julli farata waxtu passé na au lieu nga julli nga defar na ngay naafila naafila boobu doo si am tiyaaba bàkkaar nga si am wuyu ko sibeef na ba tey julli yi mooy yin araamal mooy wax ne julli si wuyu ko sibeef na naafila baada tu weexal fajri ginnaaw xaru fenku jant weer bi ginnaaw xaru fajar waaw ginnaaw ba salaatoo pare ba salaatu ba julli fajar a pare ba waaw ba julli suba pare diggante boobu moo si ko naate la ilaa an tartafa jëm ba yëkkati ko acham jant bi kii la rom xin lu toll ne guntux korom jant bi yëkkati ko lu toll ne guntux diggante boobu naate dafa dañ ko si wa baada fardil asri ak ginnaaw farat ginnaaw faratay takusaan ginnaaw takusaan tamit julli fa dañ ko si naafila fa ilaa an tusalla jëm ba ko ba ko ngay julli almaghrib timis ba julli tak xam ba ko ngay timis diggante boobu naafila fa gën ko sib wa inda azani jumaa ak jamonoy noddu jumaa lil jaari si ñeen aji toog imaam suñu noddee jumaa fekk la ci bi jàkk ji nga toog suñu ne la nga jugaat di julli waaye su la fekkee ngay doog a dugg si jumaa ji mbaa mën nga naafila ci toog moo tax wa baada fadli jumaati ak ginnaaw fadli ajuma fi musalla si julluwaay ba si julli aju ba pare nga nga naafila ci biir jàkka ji si nul booba nga xaar ba ñibba sa kër nga naafila xool wala su ko sibeeful nag inda waxtu istiwaa si jamono yi inda waxtu istiwaa si fas waxtu yamoo bi wala su ko sibeeful inda waxtu istiwaa yi si fas waxtu yamoo bi waxtu istiwaa mooy bu njëkk jëngu jant bi an kabi sala jant bi njëkk muy jeng si digg asamaan si mooy ay midi midi di li nga xam ne jant bi jengagul nekkagul ci digg asamaan si de mi mi ngi mi ngi waaj a jeng mais jengagul nekkagul ci digg asamaan si ba diggante boobu mooy waxtu istiwaa ci bu ñu ah ku xanaati la waaw mu ne faslun الأذان سنة في المواضع التي العادة أن تجتمع الناس بها كالجوامع والمساجد من الأذان النرد سنة سنة لا في المواضع التي شبرت بها خمسة العادة آه، عادة لي- عادة لا أن تجتمع بداية الناس من بها شبر بيوي بداية بها خمسة ñi dañ fay daje en général di fa daje di fa ja- jaamu yàlla ah kan jumaa mi ni ki jumaa yi wal masajid ak ak ak jàkka yi suñ naan man bu heure boobu ñuy waaj a daje di waaj a jot am ko nodd pour yëg leen ne heure bi jege na woowu moom soo ko xamul nodd soo xamul li muy tekki al ilaaw mooy yëgle xam ne du xooli waxtu salaati si dugg waxtu julli waaw al mafuuda si bari ñu farataan min alfaadil mashruuca si ay baat yu ñu yoonal waaw nekkul loo neex ngay noddee ngay wootee dafa am ay baat yu ñu yoonal ne sooy noddu baat yooyu ngay noddee waaw benn saxaaba moo ko génn moo ko géntoon waaw mu ne wala duha wa huwa moom soo ko xamul allahu akbaru allahu akbaru ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah allahu yàlla akbaru aji màgg la allahu yàlla akbaru moo gën a màgg lépp lu moo doon ashhadu maa ngi seede ni an naka li mbir te mbir laa ilaha amul benn buur bu ñu jaamu illa allahu budul yàlla ashhadu maa ngi seede ni an laa ilaha amul benn buur bu ñu jaamu illa allahu budul yàlla nga wax ko ñaar yoon ashhadu maa ngi seede ni anna muhammadan naka muhammad rasulullah ndawal yàlla la ashhadu maa ngi seede ni anna muhammad naka muhammad rasulullah yonentu yàlla la ma yurajjacu topp nga baabu achahadatay ñaan baab seede yi soo waxee allahu allahu akbar da ngay da ngay da ngay noppi da ngay wax nànk ne ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah bi sawtin xafif si wa si baat bu suufe ah su ma yurajjacu topp mu baamu achahadatay ñaan baab seede yi bi arfaa min sawtihi bi arfaa si si lu gën a yëkkati ko min sawtihi si baatam ba awala si ñaan benn waaw noo koy waxee woon bu njëkk bi daal bu ñaareel soo koy wax day gën a foor su ma yaqul toog mu wax xayya ala xayya ala ayca leen xayya ala salaat ayca leen ci julli ji xayya ala salaati ayca leen ci julli ji xayya ala salaahi ayca leen ci mbégte mi xayya ala falaahi ayca leen ci mbégte mi allahu yàlla akbarul aji màgg la akbar aji màgg la allahu yàlla akbarul akbarul aji màgg la laa ilaha amul benn buur bu ñuy jaam illa allah bul yàlla mu ne waaye ziiru dina dolli fi adaani subaxi si noddu suba baada qawlihi ginnaaw waxam ginnaaw waxam xayya alal falaaxi dina si dolli asalaatu julli xayri moo gën leen loolu si melaw marateen marateen ñaari yoon julli suba noddu suba nag ginnaaw ba nga waxee xayya alal falaaxi da nga da nga siy dolli asalaatu xayri moo gën ñaari yoon loolu mu ne walaa yajuusu du dagan an yu addina mu noddu li salaatin ñeel benn julli min asalawaati alxamsati ci julli juróom yi xata jumaa rek jumaa qabla waqtiha lu njëkk waxtu ba waaw xata jumaa ba tey jumaa qabla waxtu ba qabla waqtiha lu njëkk waxtu ba waaw mu ne julli suba julli juróom yi dagalul nga ndodd ci benn te waxtu bi duggagul même jumaa sax dama bëgg nga xam ba waxtu bi ma doog lool benn la fi fekkee illaa salaatul subhi lu rek julli suba lu dul julli suba te loolu la ko yu saxaabu soppeef na an yu addina lahaa mu noddal ko fi sultil axiri si ñetteel xaaj yi guddi gi ñetteel xaaj yi mujj gi ñu ne leen si guddi gi sulusil axiri juróom-benneel xaaj waaw su xaaj julli gi guddi gi juróom-benn xaaj xaaj bu mujj gi ah xam la tulu al fajr yi duñ dëkk xam saga lay quatre su ma yu addinu toog mu noddu laxaa ñeel ko saaneel noddu ñaareel la indi duxul waxtu si waxtu dugg waxtu loolu suba doo woon xamal ooy saxabu soppeef na ñu mun faral di ñeel aji wét ila kaane nekk na mu saaseen bi aji tukki mu noddu li ayu addina mu noddu li xadis abi saidi ngir xadis abi said xeeti yi abi said alxudari أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أراك تحب الغنم والبادية ñeenti dafa ne ko gis naa la yow ngay nekk ku sopp gàtt ak àll bi foo nekk àll bi ngay nekk sàmm rek mooy sa métier moom rek nga bëgg mu ne ko nag fa ida kunta fi gharamika aw fi baadiyatika fa fa az fa az fa azinta bi salaati farfa sawtaka bil nidaa fa innahu la yasmau mala sawtin mu azin jinnun wala insun wala cheyun illa shahid lahu yowma alqiyama mu ne ko soo nekkatee ci àll bi ba waxtu julli jot mu ne na nga yëkkat sa baat nodd ndax sa baat boobu amul dara lu koy dégg moo xam nit la wala jinne la wala lu moo doon loolu na yowma alqiyama dina la seedeel moo tax sax seetaane buy nodd suñu liqaam du daw te liqaam moo gën a fedeliku nodd te suñu nodd day daw te suñu liqaam du daw te dañ ne al iqaamatu akadu min al adaan moo gën a fedeli ku nodd sunna la waaye moo gën a fedeli ku nodd li tax sitaan daw nag illa bi mooy nodd soo ko déggee nodd soo ko déggee fas nga seedal boobu yow wax yàlla ak ak ngëm yàlla loolu la ci bañ nag moo tax su mu déggee nodd rek moom moom foofu yëpp dafa nekk daw bañ seddali moom waaw seede yooyu lay bañ te su ko déggee fu mu jaar seede la tambiih li ak yeete la mu ne wal yaxdari na wattandiku almuaddinu aji noddu min maddi bàyyi akbar ci xëcc baawu akbar bi allahu akbar comme ñeen ñeen nodde mooy na nga wattandiku loolu allahu akbar ngay wax baa bi kenn du ko xëcc mu ne allahu akbar dañ ko wax wa ashhadu ak ashhadu ashhadu kenn du ko wax ashhadu rek ashhadu an la ilaha illa allah maanaam ashhadu kenn du ko wax wal jalalatu ak baatu ak baat bu tedd ba mooy allahu akbar waaw mooy allahu bi mooy jalaale bi allahu allahu waaw wa min alwaqfi ak si taxaw ala laa ilaha si laa ilaha ndax soo waxee laa ilaha da ngaa dàq dara dara existeetul benn benn nguur existeetul lépp nga dàq da nga ne laa ilaha amul benn buur bu muy jaam nga wax moo tax foofu bëgg ñu ko taxaw fa moo tax yéen ñi si waay nee naan nee naan soo soo waxoon laa ilaha deefa yéen si yàlla am ñu ne ba xam julli nga wala julli da ci dañ koy si sàkkal waaw moo tax soo waxee laa ilaha doo bëgg nga gaaw indi illallah saxal ne yàlla doog moo fi moo fi nekk moo tax mu ne wa min alwaqf ak taxaw ala laa ilaha si laa ilaha wa min tarki idgaami daali ak bàyyi idgaam daal bi waaw idgaam daal bi waaw amin tarki idgaami daali ak bàyyi idgaam daal wa fira ak sira min muhammadin rasulullah si muhammadin rasulullah muhammadur muhammadar muhammadar da nga idgaam daal bi sira gi dégg muhammadar rasulullah nga bàyyi idgaam boobu nag mooy na nga ko wattandiku wa min fatxi laam ak fata laam min rasulillahi waaw muhammad dar muhammad wa min fatxi laam min muhammad muhammad muhammad rasulullahi min rasulillahi rasulullahi mu ne nga bañ a fata laam bi loolu tamit na nga ko wattandiku waaw muhammadu ashhadu an la wa ashhadu anna muhammadan rasulullah muhammadan ngay wax waaw ndax ismu inna la ismu inna dañ koy naka
nga bañ a wax rasul nga bañ a wax rasula wala rasulu nga bañ a wax rasulu wala rasulu fataa ko daal moom nga wax nga bañ a fa nga bañ a bàyyi fataa gi ndax ismu inna dañ koy naka wa min tarki nut ak bàyyi tudd bil haasiha min hayya ala salaati waaw hayya ala salaati sooy taxaw boobu ñu ngi indi taa bi da nga xaar nga fay saxal da nga hayya ala salaa hayya ala salaa bàyyi tudd xaa googu nag na nga ko watali wa min tarkil xaa ak bàyyi xaa min hayya ala salaa ci hayya ala salaa ak ñoom hayya ala salaa la ñuy wax du xala hayya ala falaax wa yakun dina nekk nag al adaanu noddu mutarasilan li lu ñu toftale min gayri maddin fi lu xëcc moo mu fi ci lu jéggi dayoo lépp dina bëgg nga yamale ko fi nga ko yamale bañ ko xëcc xëcc bu ëpp mu naan allah ashhadu wala tamtiitin jaageen wala tamtiitin mawquufan gayra mu'rabin waaw mu ne wala tamtiitin bi jaageen dog dogal da koy dog dogal doo bëgg nga def ko benn yoon mawquufan bu ñu taxawal gayra mu'rabin te nekkul lu ñu leeral mutawaalir mu ngir muy ñu taftale li bi xaytu laay taxalluluhu fu fu dul wet sukkutum noppi kasiiru du bëri wala kalaamu du jaageen wax dama bëgg daal nga nodd ko nodd goo xamante ne benn yoon koy def nga bañ a nekk bi am ay taxaw ak yenn mu ne suwaa un way yamoo la kaana ma xam nekk na salaaman aw raddan aw gayrima moo xam kaa nekk na moo xam do- dogit gi li nga ko dogee salaamul nuyoo la kenn du romb nga nuyu ko ah awala dina wala delloo nuyoo wala kenn mu nuyu la nga ne ko waaleykum salaam ay bëgguñu ko si aw xayrima wala ñu mel ne ñoom ñaar wooyu saxabu soppeeku nag li man ñer ki xam si maahu dégg na ko an yaxkiyahu mu ne mu nettali ko ila axir shahadatain ba ci mujj mujjantelu ñaari waat seede yi ñu koy tajjeen suñul baamu waaw suñul baamu moo bëgg soo déggee kuy noonu nga topp si ginnaawam lu mu wax nga nekk la war waxaat ko bés mu jëntal ñaar ak seede yi mu ne mu ne doo ko baamuwaat doo waaye baamuwaat doo baam comme moom ñu koy baam doo baam walaw kaan doo te nekk na fii salaati naas julli naas doo julli naas nga nekk sax sopp na nga def loolu waaye fekk julli fàtt mën a koy chat soppeeku na film addina si koy nodd shuuti si xasin ay chat yu wér waaye wa shuuti kamaay ay ak ay chat yu mat shuuti si xa mooy chat yi nga xam ne su ñëwul nodd gi du baax shuuti kamaa nag mooy chat yi nga xamante ne mooy tax nodd gi mat sëkk du yàqu nodd mais mooy tax nodd gi mat sëkk waaw fa shuutu si xat yi chat yi wér an yakuna mooy mu nekk ñi koy wéral an yakuna mooy mu nekk musliman di julli kii noonu dafa war nekk julli benn naka leen di góor bàyyi kon di ko majeur di man di ko man mukallaf aaqil di ko am xel mooy ñeenti charte yooyu wa shurutul kamaal yi charte yi tax mu man nag nekk nodd gu yàlla nangu an yakuna mooy mooy kii nodd nekk adilan di ko maanu nekk ko maanu aarifan di ko xam bil awqaat sax si waxtu julli yi dañ ko xamante wax julli yëpp xam ne bu nekk ñu dalee ak yam te itam di ko baati ne ku ku xumb baat ba yeneen koo xam ne dañ si noddee sax ñun jëndal duñ ko xaw a dégg mutatahiran di ko laab qaiman di ko taxaw mustaqbil xaytum julli ko moo bëgg tamit sa nodd nga taxaw julli ko illa al ismaa an rek nag dëgtal yu nag da ngay da nga see bëgg dëgtal ñi nekk ci ci ci sa wàll yëpp ba tax ngay def lii def lii jëm côté bi jëm soo jëmee côté ba chaque jëm côté bi jëm côté bi fekk loolu nga si jublu nag kon baba baax fekkee dëgtal nga si jublu wa an laa yakun mu ba nekk na xad salla di julli woon ci tilka saat boobu la julli allati bi nga xamante ne azana laha noddal na ko julli gi nga xamante ne moom nga noddal mu bañ a nekk julli goo xam julli nga ko bàyyi xalam mu ne mu bañ nekk julli nga xam ne julli nga ko baax waaw comme nga yow boo jullee ba pare doo war waroo ko nodd ko doo ko nodd nga julli yow yow dong ah benn mbooloo ñëw di di julliwaat ñuy nodd mais yow amoo droit noonu parce que al iqaamatu li iqaam sunnatu sunna la aw kadu moo gën a feddali ko nag nga ajaani ci nodd ndax lan li ci saa yaa ngir jokk ngir jokk ngir jokk ngir jokkoom di salaati ci julli ndax diggante nodd ak julli xaw na soriwantoo waaye diggante li xam li xam ne li xam rek ci daal di kàbbaar loolu moo tax mu gën ko feddali wa in tawaax neen wa in taraaxaa nañ yéexee na maa bay na huma yi nekk seen diggante bi ñaata mooy diggante liqaam bi ak julli bi fekkee da ngaa liqaam toog lu xaw a lu xaw yàgg tuuti julli wu kabaaroo kon ba pare yàq nga liqaamu ci liqaam bi yow suuf ñu xam na ko sàkk ko sosaat ko liqaamaat wa qaala indi kinaan indi kinaan nee na man salata kabaya abdan sittay batal yàqu na salaat ci julli ñu ci nee na nag liqaam sib ko bàyyi ko tey ko ci julli yàqu na xal ixtiyaat kon li léemtu al ixtiyaat mooy wat wat toog alal ixtiyaat ci dikk bi yaa ci woon kon li léemtu daal mooy nga wattu ba indi ko ba sa bañ ko sàggane walaay ta saaxalu fi daalika walaay ta saaxalu bu mu sàggane fi daalika si loolu mu ne wa hada lii nag bañ koy wax fi xaqi rajuli mooy aqu góor bañ koy wax ba ñuy wax naan ku ko bàyyi te tey ko julli yàqu na mooy si góor moo tax ñuy wax ndax wa amal mar atu daal jigéen fa iqaamatu iqaam mustahabatu lu ñu soppale fi xaqiyaa si aqam moom lañ ko soppale donc lu wax si moom siren si yoon te te su koy def tamit nan ko la koy wax mu ne wa in lam tuqim fi liqaamul fala isma alayha baka wër ko wala duha baat ya nag allahu akbar allahu akbar yàlla aji màgg la ashhadu an seede an laa ilaha illa allahu amul benn buur bu ñu jaam bu dul yàlla ashhadu an seede anna muhammad nag muhammad rasulullahi lu nekk lépp benn yoon koy wax ba mu def ba mu def allahu akbar allahu akbar hayya ala salaati ah ayca lañ ci julli bi hayya ala salaat ayca lañ ci dëkk bi xad qaamat jóge na ak salaat ci julli bi allahu yàlla akbaru aji màgg la allahu yàlla akbaru aji màgg la laa ilaha amul benn buur bu ñu jaam bu dul allah amul yàlla waaye li nga xam ne gannaaw tudd nañ ko nag min iq min ifraadil iqaama ci wéetal iqaama mooy baat bu ne nga wax benn yoon mooy ifraadil iqaama bokk ak noonu maa adab takbir yi ba mu des kabaar yi kabaar yi doo ngay wax ñaan kabaar yu njëkk yi ak ñaar kabaar yu mujj yi tey ñëw na ko mutanaa lu ñu ñaanal boobu moom almashhur mooy li ci ñu ngi am ñoo xam ne suñu nodd suñu iqaam baat yëpp ñaanal ko wax fa in shafaa nem tollantal na nag gayu takbirati lu dul ñaari ba ñaari kabaar yi lu dul kabaar yi laa ci jiwu du ko doy xaamu si xaamu nee na nag so tolloon tële soo defee ñaar lu dul allahu akbar yi nee na si liqaam bi doyul wala yatakallam bu mu wax nag si liqaamu si liqaam bi wala yëpp bu mu delloo ala mun sale ñen si ko nuyu ku nuyu ale si moom ki lu nuyu bu ko delloo wala mu sàlli ay julli nag mu xajarun ci ñu tànn loola bay na an yaxuuma si mu taxawal mu liqaam li salaati jëf julli xaalal iqaamati jamono ji muy taxaw aw baadaha an yaqwa mu taxaw li salaati jëf julli xaalal iqaamati jamono ji muy liqaam aw baadaha wala ginnaaw bu mu liqaamee kii julli nag soo neexee ñaar ñaar tànnaloo benn jamono ji ngay liqaam nga jug waaw ngay liqaam wala waxtaan bi nga xam ne kër boobu ñu ko loolu ñu waaw ñaari nañ tam baax na ko ah